maanaam xale bi nga xamante ni moo taaloon fële ca Italie ah car boobu noonu jamono ji euh, euh, takk der yaa ngi koy xool coow la bari na trop fee nga xamante ni mooy ca Italie su ma jógee ci la tribune demee daal dem ci li nga xamante ni mooy Walf Quotidien Walf Quotidien ñu def malaise c'est les libéraux la ilaha illallah vente de rébellion autour de Wade fi mu toll nii ki nga xamante ni mooy bàyyi Karim Meïssa Wade Yirim Fara Wade Ndiak ak Daara Wade Ndiak coow laa nga mel ni mbàccum gerte ca këram kër Abdoulaye Wade daal temps yi dafa mel ni gaz rek di bax box ci mam boy su waxé li suba ma ci li nga xamante ni mooy Walf Quotidien demee da dem euh le quotidien le quotidien ñu def polémique socialiste ñu da def Wilane et son adjoint ne porte pas la même parole manam ki nga xamante moy euh, euh Abdoulaye Wilane ak nga xamni moy adjoint ba jamono yi ñu tollu ñom ñaar bu Wilane jaaré ni adjoint ba jaar né socialiste seen biir nak ciow la ngi bari lool lool lool jamono yi ñu tollu waxuma ko li nga xamante moy quotidien yéen kay ko wax su ma jógee ci quotidien damay daa dem ci l' observateur l' ñu def euh, banque vague d'escroquerie sur l'Atlantique. La laa ilaha illallah banque bi nga xamante ni banque Atlantique D'or nañ l'en ay martu yu méttee métti métti métti métti métti ba fa tax na fi toll nii banque Atlantique mën naa ne daal genn wàllu xaalis ba yëpp yëpp yëpp d'or nañ l'en ko ci Sénégal fu ñu jëm ak dóorkat yi su ma jógee ci nga xam ne mooy euh, l' observateur damay dem ci pop pop yéene l'Italie bouillon de colère Ousseynou risque de perdre sa nationalité italienne waaw waaw fi mu toll nii euh, ki nga Italie mer nañ lool lool la nationalité italienne am dina ko ndax dafa bi Sy car de Italie Cano Italie ta

li ëpp na su ma ci li nga xam ne Dakar Times damay dem ci les échos les échos ñu def un porteur tuer son collègue pour un sac de patates la ilaha illallah ki dé rey na xaritam ndax saaku pataas wa fa la ñambi jëm ñambi ak supame ak ak carotte fan lañ jëm yow pataas rek nga ray nit ay wa Sénégal délo sen sen xel ci yalla li metti na dé mi ngi ni rey na xarit ba ndax saaku pataas fële ca caaro

l'affaire Sec, hein, l'affaire Sec, toute la monstruosité du système judiciaire sénégalais ki nga système judiciaire sénégalais bi mi ngi Info je Info Bordeaux après ses attaques contre le CNG Gris Bordeaux suspendu un an avec sursis Gris Bordeaux CNG Gris CNG kenn du bëreeg moom bëreel ci làmb ji rek lan ngay dem di xuloog CNG li ñuy wax tey nii waxuma ko suñu làmb ko wax su ma jógee suñu làmb dañoo daal dem ci stade yéen kaay waaw waaw ñu def photo Sadio Mané ñu daal def ces euh, accueils qui freinent les lions ah mbokki Sénégal waaj leen gaaw ndax samedi match ba dina neex de fële ne mooy Thiès Sénégal jigéen ñee ma yónni jigéen ñu Sénégal ma yónni ndax nee nañu.